ak dañu ñu li ñu naan wooyee immigration clandestine immigration clandestine nag boo xoolee euh, tàmmaluñu ko démb bi fi président fi nekkoon di maître Abdoulaye Wade en 2006 2007 xale yi faatu woon bari na trop jamono yooyu dañ doon gaal gi dem Espagne ñi jot nañu rëcc ñii génn àdduna euh, lan moo tax xale yi Ndakaar yi xale yi Sénégal yi di jël gaal gi dem bitim réew nekk na mbir mu doy waar te mbir mu doy mbir mu doy waar te daw yaram Sénégal nag dafa nekk réew moo xam ni réewum jàmm la réewum euh, démocratie la euh, nekk na réew moo xam ni kilifa diine yi fi nekkoon ñoom ñoo tax jàmm gën a sax Sénégal nekk réew mu jàmbaare tey lan moo poussé ndaw yi ñun dañuy dem si biir géej gi euh, dégg ngeen le porte parole di xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké da ngeen le porte kii di sëñ Bass def déclaration bu am solo déclaration boo xam ne nee na euh, si ay kàddoom yoon jàkkaarloo dem taskatu xabaar yi fii ci Ndakaaru ne képp kuy def immigration clandestine euh, diine l'islam tere na ko li tubaab naan loolu suicide la xaru la yaakaar nañ tey waajur yu bari tey waruñu seetaan seen doom yi di jël gaal yi dem mi gën di jéggi dayoo lépp loo gis si réew dafa laaj toog waxtaan diisoo mën si am ay saafara mais li ñu gis nii daw na yaram xale yaa ngi dee guddi ak bëccëg euh, gaal yi ñuy dugg mi ngi tàkk léeg-léeg ñu dem ba digg géej gi gaal yi surux amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu naan mbir metti na le khalife général des mourides nag nee na xale yi war nañu ànd ak dal ak yar ak teggin am na si nag seen ñaar fukki euh, taalibe murid yoo xam ni si kër gi lañ bokk ñoom faratu nañu ne loolu mu ngi koy ñawlu képp koo xam ni yaa ngi ànd ak sëñ Tuubaa képp koo xam ni doomu jullit nga war nga ànd ak dal ak yar ak teggin immigration clandestine war nañ ko war nañ ko càmbar xool yan solution la ñu mën a di génne Sénégalais yi si ay jiixi jaaxa mbir mi nag mi ngi gën di metti ñi nga xam nag ñoom ñooy nguur gi muy le président de la République monsieur Macky Sall. ak l'ensemble de son gouvernement ñoom ñoo war a góorgóorlu gestuwaat ndaw yi créer fi ay projet d'emploi ay projet yoo xam ni xale yi dañu am xëy parce que li ñuy gis day gën a garaaw ba léegi boo xoolee tey boo déglu xool boo xoolee si réseaux sociaux yi ngay déglu rajo yi télé yi journaux yi xale yaa ngi dem ba léegi en tant que sénégalais euh, ñi ngi woo gouvernement bi di woo ñëpp ñu mën a góorgóorlu apporter seen soutien maanaam seen dimbal si xale yi Sénégal am na fi ñoo xam ne ñu ngi seen lijaas gis ay xale yoo xam ne seen seen master ñu ngi seen i ñi nga xam ni am nañu ba seen i DEA loolu métti na yore seen i lijaas topp géej gi di dem bu dee fan lañ jëm tey gouvernement espagnol dañu dañu mujjee obligé ne dañuy tëj frontière képp kuy étranger muy sénégalais muy malien xeet yëpp ngi daw tey jóoree Espagne ma ne nañu toog suñu réew liggéey baa ngi fi ñu mën a góorgóorlu euh, fas jom xar suñu tànk tubéy liggéeyal suñu réew dañ naan la jeunesse moom mooy ñu xale yu ndaw yi ñoom ñooy yaakaaru ëllëg suñu réew mii di waat di dànqaafuwaat parents yi papa yi yaay yi cousin yi ñu gën a euh, delluwaat xale yi te li ñuy def amul benn solo amul benn fullo amul benn fayda ma ni gàcce ngalaama le porte-parole du khalife général des mourides ne mbir mi daf ko metti jullit warul doxalee nii xale naam war na teral ay waajuram du nii lañ koy defee àdduna nag di da war a muñ boo toogee sa réew nga am say ngëm-ngëm yaakaar ne lépp ñu bëgg borom bi incha allah te bu neexee Ahmadou Bamba nga xam mooy le fondateur du mouridisme lépp na jaar yoon si si kenn ñaanu ko yàlla euh, Sénégal mosuñu xam lii 2006 ba tey jamono yi amoon na boobu metti woon na ñu ñëwaat si nguuru Macky Sall xale yi li naan découragement toll ñu am euh, nañu gëstuwaat xale yi ma ne mbokk yi nañu gën a góorgóorlu toog waxtaan di woo ONG yi partenaire au développement yi association yi euh, le forum civil organisation yi yow ak doomu aadama ma ne nañu gëstu xale yi te ñu bàyyi li ñuy def di woo toute la diaspora africaine yi nekk bitim réew di suivre Salam Vision une télévision boo xam ne dafa nekkal askan bi di woo kër que képp kuy africain muy sénégalais muy mauritanien ñëpp nañu sóobu xar suñu tànk tubéy jàppale ndaw yi di woo bailleurs de fonds yi ma ne combat boo xam ne nag ay ñaata milliards ñoo fi dugg des centaines de milliards tey askan baa ngi laaj fan la xaalis yi dugg mbokk yi ma ne ñun kenn mënuñu nelaw kenn mënuñu nelawloo kenn mënuñu gërëm nañu delloo suñu xel si yàlla kër mbir mi dafa metti mbirum du mbirum Sénégal mbirum Afrique la nañu xar suñu tànk bay delluwaat euh, ñu kër nga xam nag mooy xale yii keroog rek ñoon def ni naan deuil national deuil national boo xam ni dañ ko jagleel xale yi ma ne boo xoolee am na si benn waajur boo xam ne lekk fële ca mbuur moom moo mujjee fa paasal doomam xale boo xam ne am fukki at ak ñeent ngeen koy bu Espagne loolu ñaaw la ñu koy méttitlu ma ne nañu bàyyi li ñuy def te delloo suñuy xel si yàlla kër lii nekk na loo xam ni mbir mu doy waar la. li toog ci mbiru immigration clandestine xam nga ni télévision bi Salam Vision askan bi la fi nekkal fële ca Ndar les associations des imams de Saint-Louis démb lañ doon naxaru que immigration clandestine bi métti na ñoom aussi jël nañu seen i kàddu di ñaawlu euh, doxalinu président France Emmanuel Macron di ŋàññi jullit yi loolu metti na ne France réewum démocratie la lu waay neex def Macron warul waru wax loolu euh, waru wax loolu askanu France naam France moom réewum démocratie la démocratie da ngay respecter réew yi li mu déclaration yi mu def ñëpp a ngi koy ñaawlu képp ku jullit ci àdduna bi gis ngeen suñu kilifa diine yi jóg nañu di ñaawlu le comportement d'Emmanuel Macron mi xam mooy réewum France ma am na yoo xam ni kilifa du ko wax dafa war a téye laminam loolu warul di jël ay kaddu di ŋàññi ay musulman ñun suñu royukaay mooy le prophète Mohammed p et salut sur lui ma ne l'islam ñu ñor mbokk yi nañu gëstuwaat bu baax te bàyyi tooñ l'islam c'est une religion de paix de tolérance et de convivialité di gërëm képp koo xam ni sénégalais nga di pusaat ndaw yi ñu delluwaat ginnaaw tuuti bàyyi immigration clandestine bi selon le porte-parole du khalife général des mourides loolu l'islam boo ko képp kay def xam ngeen mbokk yi jàngeen jëf mën ngeen coacher sur les programmes